auzu billahi min asheytaani lenn la ci bayite sëriñ Musaa jóge ci téeréem bii tudd wolofalu màggal yi déglul ma dellu wax la nisfu Chaabaan waaju ko màggal war ko làq ridwaan ndegam xamoo fii leeletil mubaaraka ci sóoratu duwaan yi laajal njàmme ka guddi keroog la yàlla naa ridwaanaa gaawal hubbi tey wunta ya jinaana seereel ni jéggal naa ci barke bis bi mbooleem jullit ñépp bi kulli zen bi topp ma kenn kenn benn bàkkaar jéggale naa lépp di maa di xafaar keroog la yàlla hubbi wunti asamaaw malaaka yépp di jalaañu niy njanaaw ñuy sotti yërmande ci mbooleem duniyaa ci xeetu njool màkk bi duuni suniya malaaka yay sàbbaalte naa billaahi tuubaa ummati rasuulillaahi yàlla ne seere leen ma yeen malaaka tey lay goreel xeetu na bi njool makka li ma yi ak li kawar yi ak noo yi laay goreel tey may fay woor yi daldi yebal malaaka naa ko yeenaal ne lu ma waay ñaan tey ma may ko ko lu mu naal ngir guddi gii mooy leletul xadaay guddik pejug aajo bilam ci ngir guddi gi mooy laylatul baraay guddi goreel jaam yi bilastinaay ngir guddi gi mooy laylatul mihaay guddik farug bàkkaar minan nisaay mooy laylatu rahmati wa ridwaani wal barakaati màggaluk shaabaani waaju ko màggal woor ko am ridwaani yowmal qiyaamati mu dem jinaani